loole itam suñu Ousmane biñ ci waxtaanee am na ci loo xam ne joxewoon na ko ndigal loole itam na ñëpp xam ne ci suñ ndigal la bàyyi ko te bu ma nee sama ndigal man awma kàddu kàddu sëñ bi la mooy bu yoru màggal gi xasee dugg buñ daggate fenn foo xam ne mën na indi gàllankoor ci réseau bi loola sëñ Ousmane wax na ko te dana ko gën a leeral ci yeneen i jataay ndax loolu itam bokk na ci li indi li indi gàllankoor bi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci dëkk bi itam muy ñi liggéey ci tali yi ñi liggéey ci ndox mi ñi liggéey ci assainissement bi ñi ci des ñëpp itam bu ñu dikkatee nit ñi yëgoo ak ñoom di yëgoo su préfet ak préfet bi nekk ci dëkk bi ndax bari loolu itam bokk nañ ci li indi gàllankoor bi ndax benn service état day jógee fa la ñëw liggéey fii loo ay milliards la te préfet bi fi ne fi yëg ko man yëguma ko man sax bu ma ko yëgoon mën naa bañ am solo. waaye ñoom ñu fi nekkee état bi xamuñ ko coordination bi day manqué te loolu bokk na ci lii indi gàllankoor ndax trante bii ñu def ci dëkk bi biñ koy def léeg nga dégg sax nit ñi ne liggéey bi daa yéex te xamuñ ne la ko yeexal mooy 30 bépp dafa romb ay tewo tewo yi nga xam ne forage yi ci biir dëkk bi la nekk di jox ndox mi ci ndox mi ci biir dëkk bi bala ñoo mën a dagg fen nag faw ñu sakk réseau bi wëlbatiwaat tewo yi jaarale ko feneen. ba mu jaar ñu dóor ko mënatee looloo yéexal ndox mi ak yenn barab yi nga xam ne dañ fa àgg mu doon barab yu bari ndox yoo xam ne amaguñ fu ñu ko yóbbu ndax réseau bi dafa fees ndax ñeent yoo xam ne moo war a yóbbu ay ndox lay doon te benn lañ ci defaroon kon loolu itam boo ko yonee lu mu da nga yàqaat la nga defaroon kon loolu itam nañ ci yëgoog ñoom lu ñu ciy defate ndax liggéey boo xam ne lenn la bu amul coordination liggéey ba na mu war a feeñ du feeñ.